mun nga call ma ci 9933263 soo ma callee rek si 9933263 dinaa la uyu dal di waxtaana yow fekk si la sa biir ñu bokk ànd ak tooga gi dal di def benn baax waaye nag di bëggee jamono bi képp koo xam ne yaa ngi ñoo seetaan ci fiiteef bi dal di bëggee ki nga xam ne mooy Kati Jallow nekk foofu noonu ca Oslo fàttewu ma ci suma papa nag di Alaaji Musa Jeng nekk foofu noonu moo jabaram di a baax a ba anti Fatou ñu ma wax sa mbokki joolaay eh, maa ngi sama mbokki joolaay mhm. eh, ñaa u katora be bayas bi mhm. pani i ni sanken way kun kanilay mhm. jalaman jame eh, di ano sananu manje ami kanilay rek ni gabo gab e bole e bina wi pop manari lapitane fana ni gabi gab tu ano sanami dere gambia tu ni gabo gab eh suman sun tambi siil cosaane yi mhm. man ano sanna juk mhm. e, a baraka loolu nga amoon invité <laughs> katé abaraka bu baax a baax a baax dégg ngeen li nga xam ne moom la ki nga xam ne mooy anti Fatou wax waaye saa su nekk dañoo bëggee ki nga xam ne mooy anti Fatou sa anti Fanta Sala di ko bëggee bu baax a baax a baax moom itamit fàttewuñ si ki nga xam ne ni mooy ah, ñi nga xam ne ñoo ñoo seetaan dañ leen di bëggee bu baax a baax a baax ñoom daabo nekk foofu noonu ci Germany dañ leen di bëggee ñoom Sol Sarr ñëpp ñu ngi leen di bëggee ñoom ñëpp nekk foofu noonu ci Germany Adja duñ ko si bu baax mooy chéri Mr Faati ak doomi ndeyam di Kumba ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëggee Hadi Kooma ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax ñoom ñëpp nekk foofu noonu ci Addis Ababa da dañ leen di bëggee saa su nekk waa Italie ñu ngi leen di bëggee ku mel ni Mamadou Diallo ak xaritam yëpp nekk foofu noonu Kasara ñaari jabaram yi wurika a ki nga xam ne mooy Bintu Cissé nekk fii ci Gambia ñoom ñoom leen di bëggee bu baax a baax a baax xam ne jamono bi yaa ngi ñu seetaan dañ laa suma maam di imaam ratib ñoom ñëpp leen di bëggee fàttewuma ci xam ne mooy Hadi Sila Njaay kooku saas nekk damaa ñaan yàlla yàggal ko fi jàmmaam yàggal ndax rek ñun ñëpp dañ koo bokka waaye nag saas nekk damaa bëggee suma yaay jooju nekk foofu noonu di ajaratu Yaasee Njaay di leen dig daje incha allah bu ñu ko yàlla mayee fekkee talaata bii di ñëw ak beneen façon ñu tooga su ko defee rek ni ma leen ko de waxee rek bakku bi yéen a ko moom da ngeen ko yëngal seen kër yi ñun itam ñu di ko yëngal fii waaye képp koo xam ne bëgg naa bokk ci programme bi pare pour tooga ak beneen feemi tooga rek call ma ci 9933263 9933263 di bëggee waa Sambeen coiffure bu baax a baax a baax ci suma make-up bi ak boppa bi yépp di leen bëggee bu baax di bëggee ki nga xam ne mooy Barara Cuun si sancite gi Barara dama laa ñaanal fan gu guddaa wér gu yaram nekk foofu noonu ca Albion Place foofu noonu ca Fijaral di leen dig daje incha allah bu ñu ko yàlla mayee fekkee talaata bi ni seen xarit la maam Jeng jërë ngeen jëf leadership is a contract. People vote for you because they expect you to stand for them and improve their living conditions. How can I make, satisfy every government? Left to me alone, if I had the power to make sure that no Gambian goes, becomes sick, or goes hungry, or is poor, I would have given it to every Gambian irrespective of whether they like me. or not. That's my wish for the government. go discover the smiling coast of Africa.